waaw sa waa jooju a baax. jërëjëf wax ci euh, saltige maa ngi lay nuyu. Ah. waaw gars yi ñoo leen laajte rek ma xaaral ma saltige dugal ko parce que gars yi may laaj ana saltige ana saltige. waaw comme la ma la waxoon rek. Mhm. Mhm. waaw kon daal yaa ngi jàpp nga jàppoon ba léegi daal. waaw maanaam man dama nekkul koo xamante ne dama yor mbubu kakataar. Mhm. man ko tey ba suba ko ginnaaw suba. ki mhm. ma foofu laay ses ki may jàppale kooku laay guddi jàppale te bu incha allah bu soobee suñu borom. Mhm. dara dara mënu tax ma teggi sama tànk foofu. incha allah. gis nga am na sama benn wóllare. waaw ku woote léegi kay. sëñ Fallou Ñaan. am na am na keneen ku woote foofu mais am na sama beneen wala rek koo xamante ne woote gudd sëñ Fallou Ñaan. waaw koo xam. Euh, moom li may liggéey lay liggéey. Mm-hmm. maa baax a baax a baax a baax mais nag dafa am yenn yoo xamante ne. waaw maanaam mu ngi mais nag comme ndeg Sonko moom moo nekkoon njiiti Diomaye. Mm-hmm. bu joom mu sonko lum doon yor pour war a fekk fe maanaam pour joomaay war a nekk si ronam far joomaay taalibe moom mujjee jël loolu hmm. loolu mun a ñàkk ndaxte boo ko jëmale si sëñ hmm. bu soobee suñ borom yàlla dina ko may teraanga àddina hmm. ak xam ko yàlla may da koy gën a yokk dafa am lu xamante man ak moom si baatin ndeysaan sëñ Fallou ñaan xool ne deret mooy mbokk. Mhm. kon man bu ma teeloon a xam loolu damay xool deret mooy mbokk ne joomaay mooy sama mbokk. Mhm. moom sëñ Fallou ñaan boobu moom ak sëñ Baaraam mii may wax ne saay bu saay bu li muy wax noonu ne saay bu kii gañewul dinañ ko muur musée yi wala dina génn tarixa yi. Mhm. gis nga muur musée yi góor moomul zaari kàddu jigéen yooyu maanaam wala ngay wax tarix boo xamante ba muy am booba abri politique amut. yooyu noonu yëpp doomi aadama nit ku baax daf ko war di moytu. jërëjëf yàlla day yàlla yàlla day bàyyee doomi hmm. mu nekk si lu mu nekk nekk si lu mu nekk ba mu leer ko lii yàlla jox na ma ko ba ma téye ko si samay loxo. Hmm. yàlla ànd ak askan bi yëpp nag askan bi ñun mënuñ cee génn yow mënoo cee génn keneen mënu cee génn. Hmm. ñu faroon fii askan bi leen bokk ñu far doon feneen askan bi la leen bokk loolu yëpp joomaay day boole njaboot ñu. ñu ñaan ko yàlla yéen bi oyof si moom mais Sénégal réew mu naqaree yor la. waaw. li nga ñam rek sa morom dina ko mos a ñoom Sénégal dafa bari ay waxtaan. Mhm. mun nañ biir ne ah, kii xam buñ xamoon duñ ko ko jox xale la amul ba xam amul mhm. ñaan yàlla loolu bu mu bu mu ci sax àgg. Mhm. mu demee expérience yor njabooti kanaara mu jiit ñu toog si bu soobee suñu bopp mais bu sama tànk sama tànk xam-xam fa ma ko teg. waaw dara mu ko bu soobee yàlla. jërëjëf Waly ñu ngi lay jërëjëf lu baax jërëjëf. gaa ñoo na laajte rek mën a xaaral ma ma woo ko euh, jërëjëf voilà mu ngi noonu Waly Diouf mu ngi noonu yéen a ko dégg yëkkati na ay kàddu euh, en tout cas ñu koy jaajëfal it ci nangoo jokk bi ak ñu ne c'est important parce que fii la daan wax s'il vous plaît nga wàññi sa télé bi wala sa kii bi ah? voilà ñu jéem a xool keneen parce que bu fekkee da ngaa woote yokk sa <laughs> télé dafay xaw compliqué pour ñu déggante man ak yow ñu ngi jégal bu baax a baax nag ñu jëlaat keneen ci ligne bi euh, salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah. Bamba siyaar naa la. ñu ngi delloo ziar. Lom de Kër Masar la. Lom de Kër Masar na nga def waaye maa ngi sant rek gën leen a déggante. ah waaw gën leen déggante moom. naka affaire ak yitte yi ak koor gi baal leen ñàkk. baal ñëw ñëw boole baal. ko teew ay déwén yu bëri. amiin amiin amiin. macha allah ñu ngi teewlu émission bi liggéey bi am na solo. jërëjëf jërëjëf. am solo bu baax a baax xanaa di di di remercier patriotes yëpp. Mhm. boo leen ko jàpp ci combat bi rek bañ tey bañ am ndam rek. Mhm. ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax a baax. Mhm. saltige boobu nag génn léegi maa ngi koy ñaanal yàlla ndax si weeru koor lañ nekk yàlla na ko yàlla soppi rek. Mm-hmm. ñu ngi yàlla yàlla soppi ko ndax ndax ñun ñëpp ay julli leen wax dëgg julli du du waat si yéen nii daal ndax gis nga tey mi ngi ni àddina yee na ko ndax xam nga lii amul ndax ay mbokkam ñi ngi ci wax dëgg ñi ngi déglu xëy na am na ay mbokk yi nekk ñi ngi déglu waaye duñu wax comme ñun mënuñ koo wax dara ndax te dañ koy rusee ay mbokk waaye nit lii da jàngal àddina rek pour ngay waxati wala bala ngay dogu si yàlla bala ngay waat tey mu ngi nii nii yàlla weer na ko yàlla wan na ko ne ko lii xew suba yàlla rek moo moo ko xam wax dëgg te lépp mi yaanaa lépp njëriñu Sénégal ndax mi Amadou yow mi mi Sonko mu ko bëggoon te gis nga yàlla ànd ko yàlla jaarale ko ci jomaay kon mu mbiri yàlla rek dafa noppi ba pare waaye daal moom ñu ñu ngi koy ñu ngi koy jégguraat bu baax rek mu ñëw dara rëccul ko daal ndax mm-hmm. xëy na suñu mbokk julli la munuñ koo wax yenn yi waa dañu dañ dañ dañ dañuy kii rek pour nga ñu xam ne ëllëg daal ñu moytu yenn yi daal ba ñu jël yenn kii di waat si alxuraan wala di waat si yàlla jërëjëf te li xam nga xam ne li war a am yàlla noppi na ba pare ñu ngi ñaanal suñu président na euh, Bassirou Diomaye yàlla euh, woyofal yen bi di ñaan Sénégal yëpp ñu jàppale ko ndax yaakaar naa lépp pour njëriñu Sénégal la te Sénégal raw si Afrique loolu lañ noonu loolu daal lañ loolu daal la ñuy ñaan incha allah te yàlla na ko yàlla def jërëjëf merci ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup jërëjëf kii bi jotaay bi am na solo jërëjëf merci en tout cas merci euh, maa ngi bu baax merci beaucoup Fatou Mbaye euh, brother Bamba your programme is very interesting macha allah merci beaucoup Abbas euh, jërëjëf Khady Tour également merci beaucoup Adji Si Abdou Fall <laughs> merci beaucoup Abdou maa nuyu bu baax a baax Mouhamed Diouf également merci beaucoup d'être là ah voilà kii moom xaw ma turam bi lu mu ci bind ba teg ci live noonu Moussa Sadia maa nuyu bu baax. ah eh, Ajara <laughs> Sow merci beaucoup maa ngi lay jaajëfal lu baax di leen gërëm di leen sant di gërëm it Waly ah, eh, parce que bu ko neexoon it mu ñàkk jël téléphone am euh, mais je pense que eh, li waxee je pense lu ñu mën a jàpp la moom saltige Waly Waly donc ñu koy gërëm aussi ah, ci disponibilité am parce que quoi qu'on puisse dire aussi ni ko baax la peut-être di ñàkk ne erreur dina am nag parfois aussi salaamaaleykum. allo. salaam. sëñ bi maa ngi na yàlla nangu ziar. mbaa yéen a ci jaamu. waaw ñu ngi sant de yow nag. waaw maa ngi sant yàlla bu baax man de kar laa tudd Arafat Grand Yoff laa dëkk Babacar Pouy. ah Arafat. Grand Yoff waaw. naka Arafat. ñu ngi fi ñu ngi sant yàlla bu baax ci jaamu. di leen leen gërëm rek. ah jërëjëf. di wax ni seen liggéey rafet na trop. moo ñu fi tax a kaw de jërëjëf. waaye nag man dafa am ñaar ñoo xamante ne dama leen bëggoon a gërëm. waaw. bu ko jaarale si seen site bi hmm. ki ci njëkk muy président Macky Sall. ah bon lan moo tax ma koy sant di gërëm waaw moo tax man ma xam kan mooy président Ousmane Sonko mhm. moom moo tax man ma xam kan mooy président Diomaye fay mhm. moo tax ma xam lu baax moo tax ma xam lu bon mhm. ci lu nekk ci biir gouvernement bi donc maa ngi koy sant ci loolu bu baax a baax a baax beneen bi ci topp nag mooy président joomaay fay maa ngi koy sant bu baax di gërëm waaye nag sama sant bi dafa am fu mu yeb mooy. Hmm. li nga xamante ni tey jii nii moo tax ñu fal ko man damay wax lu leer man sama carte ak li ma def si Pastef yëpp jaay ay bracelet grand yow fii képp ku takk bracelet man maa ko jaay. <laughs> yaa jaay. maa ko man maa ko ko jaay man. Ah, kon sonn nga ci si kii bi. voilà amul na amul sax nu ma si sonneewu loolu ah, moom dafa leer nañ. yow sonn nga ci trop kay. waaw sonn dem di ay bracelet di ñëw di jaay waa ah, mais nag dafa am sas boo xamante ni moom moo nekk si ndodam. man dama paar man bu ko defulee du ma ko ko baal ba illaa yow mi diin. muy lan. mooy. Ah. ñi nga xamante ni dañoo nekkoon si gouvernement Macky Sall. Ah. te ñu dénkoon leen suñu réew. nag ñu saytu seen liggéey ndax jaar na si yoon war a jaarul si yoon. Ah, ñu audit leen daal waaw képp ku liggéeyal liggéeyam jaarul woon si yoon. Hmm. nañu na na ko tëj mu génnee suñu xaalis fay ñu. Hmm, hmm. ku luubal suñu xaalis na ko génnee. muy euh, ñoom ñëpp Moustapha ñi nga xamante ni tamit dañu doon wax rek di ratatase yoo seen làmmiñ yu rëy di saaga président euh, Ousmane Sonko. <laughs> dañu génn ñu leeralal ñu lan moo tax ñu ko doon saaga. ok premier premier xam nga ci kan jiitu. ah Moustapha paa boobu si boobu la ñuy njëkkee même bu mujjee si moom sax mais na ko woo rek nañ ko woo ñu laaj ñu wax ñu lan moo tax mu ko doon saaga saaga yooyu waaw ñun ñi nga xamante ne dañoo nekk extérieur ci kaw. ak ay ñoom aadamoo wa xaw ma naka naka ñooñu ñëpp nañu fexe ñu dellu si fii Sénégal ñu ñëw wax ñu lan moo tax ñu ko doon saaga amul Kaliphone ak ñoom ñëpp ci yem nañu wax lan moo tax ñu doon saaga président Ousmane Sonko man lii laa amoon lu ma leen di wax. jërëjëf di na yàlla gudd fan ak wér ak wér. jërëjëf yàlla sàmm. waaw ah, jërëjëf. waaye wax bi ngir yàlla na yegg. non yoo xam ne yegg na yow yëpp ñu ngi lay déglu. voilà jërëjëf yal la yàlla sàmm te aar la. waaw ah, ñu bokk ñu ñëpp mais léegi na ko jot. yàlla def yàlla nag yal na yàlla def directeur RTS. waaw. ñu nañ changé ki fa nekk ñu àndil ñu keneen. parce que man ah. gëj naa seetaan RTS. gëj nga ko seetaan dégg naa nga. abonné naa de waaw waaw maa ngi ci biir. ah waaw abonné nañ abonné RTS. Ah. man abonné et du mu fay rek abonné en tant que génne wuñu directeur boobu. <laughs> na directeur bi génn bu pare may soog a abonné buñ ko génnewul du ma abonné. <laughs> waaw jërëjëf jërëjëf merci beaucoup. 19 euh, euh, heures passées